maxane boobu dara nekku ji style la rek pour wane na kii mooy Mont Lamine Rose xam nga nit ku ne dafa am li lay xoolee surtout artiste waaw man nag moo loolu mooy sama identité ku maxane bi rek di nga xam ne Mont Lamine Rose la ba léegi HLM léegi ñëppay ñëppay sol maxane bu rouge mécanicien yeex ñëpp sama gars yi ñëpp ñëpp ñëpp ay maxane yu rose la ñuy sol si xale nga débuté si aar yombul yeah mais dinaa ko génnewaat nag nag xam naa ni man ak yow foog ñu foog ñu defaat leneen. <clears throat> dañuy jàkkaarloo waat euh, après boobu noonu incha allah danga ñu koy indil. waaw parce que suñu jàkkaarloo bii di ñëwaat faaw maxane bu rouge bi ñëw. faaw faaw day ñëw faaw faaw mu ñëw. non faaw bi ñëw nax c'est la affaire yi ne. mais xale yu jigéen yi sa secret ak ñoom ak lan mu indi euh, feccal Modou Lamine Ndiaye Rose. waaw jàmm la nag comme ni nga waxee parce que jigéen dafa bëgg ku ko jox cër ku ne ko yow la te. boo xamee loolu rek da leen di am parce que jigéen moo bëgg loolu te da ngay def ñoom li ñu bëgg man sama ay sama ay soppe lañ sama ay xarit lañ parce que benn way naa ko si way wi ngay dégg nii jigéen mooy sunu yaay parce que ñoom yaay lañu avant tout ba pare kon tey ñun bu ñu nekkee artiste nekk si art suñu liggéey ñoom ñoo ñoom ñoo koy def ñoom ñoo tax ñun ñuy liggéey parce que tey bu ñu tegee sabar ñoom ñooy ñëw bu ñu wootee soirée ñoom jigéen ñoom ñooy ñëw góor ñi soog a ñëw lenn kese la mooy nga am ak ñoom jàmm jàmm ji ma am ak ñoom nag moo tax ñu bëgg ma lu ma def ñu jàpp si muy neex secret boobu kese la mooy que damay dama leen jox cër ñii sama ay doom lañ ñi ñoo ma mag sax waaye papa may wax kon nga xam ne loolu dafa foor kon jàmm jàmm jàmm la daal man loolu laa loolu mën a wax du leneen du du ay solu du ay du ay affaire jantal du affaire du loolu waaw affaire de maanaam cër bi ma leen jox la ñoom ñu delloowaat ma cër bi mu ngi noonu jàmm la nee na jàmm la cër la bum leen jox ñoom ñu delloowaat ko ko euh, dangeen bokk génération yaa xale yi bokk li ngeen bëgg ba pare yow nga xam ñoom li ñu bëgg nga koy def. te loolu dafa am solo nga xam ni nit ki lii la bëgg nga koy def bu yàggee da ngay ànd ak moom. loola yàlla dogal na dañoo bokk génération bi nga wax parce que tamit ñun dañoo judd nekk ay xale nekk ci aar sunu sunu papa yi nekk fi def seen bay seen waar ba mu rafet ñun ñu ñëw nekk xale yi. kon donc ñun dañoo ñëw indi si benn beneen touche maanaam dañoo ñëw indi leneen ñu ñëw na fekk si leen ñoom si lu ñu bëgg mooy ñëw indi ambiance indi ay taasu teg ko fi indi sañse teg ko fi indi di dem di leen seeti seeni kër di def ay mbaxal di dem di leen toog di wataan ak ñoom looloo tax ñu miin ñu ba pare comme ñoom ay xale lañ dañuy def yëfu xale rek ànd ak ñoom ambiance def ba mu baax sañse di leen bégal ñoom ñuy kontaan loolu kase la. lan ngay dencel ñi nga xamante ni ñoo di fang si Modou Lamine Ndiaye Rose waaw xam nga ba nga duggee léegi am na yi ma la tegal. te am na yeneen yu des. te dinaa leen ci ñamal. Euh, ñi ngi nekk na si liggéey bu baax a baax a baax nekk joo mun naa la wax ne la su ma neexee mën na la album sax pare na su neexee mun naa la wax lool ne la pare naa sax album mais musique moo nekk loo xam ne mun nga def benn affaire mu am doole li si war a am doo ko si am man période bi may génnee sama ma tëggu ko tëggu ko tëggu ko bi ñu ngi ñu fekk plein corona comprendre nga tey dañu nekk ay xale bëgg ko génnee rek mu gaaw ñu génnee ko mu gaaw mais tey peut-être su ma teeyoon mënoon naa si am loo xam ne après sama sama vie artiste day gën a nice day gën a day gën a ibbeeku mais ñi ngi si liggéey bu wóor loo xam ne buñ ko génnee Sénégalais yi ah gars yi dinañu kontaan de dinañu bégati dinañ kontaanati waaw. am nga yaakaar ni loolu dina dàq feccal Mor Lamine Ndiaye. ñu ngi si parce que nag dàq loolu yombul de mais ñi ngi si tànk yooyu di defar loo xam ne parce que musique la affaire de jinne la rek waaw da ngay xool lu gën a rafetaat rek nga def ko mais mën nga def benn musique boo xam ne na day dem mënatoo ko amat. waaw looloo ñu dal si feccel Mamadou Lamine Ndiaye Rose parce que dañ ko daan foowee si sabar yeex yooyu yaa mu dem ba ñëpp di ko suivre di ko ba ma def ko ba ma def ko single kon maa ngi maa ngi wax Séné sénégalais yi di wax waa diaspora parce que moo Lamine Ndiaye Rose léegi nekkatul Sénégal kese maa ngi wax képp koo xam ne yaa ngi may suivre partout dans le monde nañu toog xaar ma maa ngi leen di waajal ay single yu nice album bi dina génn ñu yëngal def ba mu baax sànnee ko falaale <laughs> ay ca mi ngi noonu kon ñi nga xamante ni ñooy suivre Modou Lamine Ndiaye Rose nee ngeen xaar ko mi ngi génnee loo xamante ni euh, bés bu génnee di ngeen fëlaale Modou Lamine sa relation ak artistes waaw sama relation ak artistes yi moom euh, artistes yi moom yàlla moo ma boole avant ma dugg si ay music, boobu ma ngi tëgg sabar mën ko lool nag xale yi di ma safoo macha donc fii yi fi nekk li ko Medina El Hadj Keita Bass Thioung Tarba Mbaye Ibro Naajo ñoo fi nekk ñu nekk ay xale ñoo ma si affaire bi man maa ngi soog a ñëw mais macha allah jàmm ak salaam la ñu sekk comme ni nga ko waxee waaw parce que moo la mi dafa sekk ñëpp jàmm man jàmm rek laay dund jàmm laay dund te artiste waroo waroo réew wala waroo waroo am benn jikko parce que dafa war da nga war a nekk yow exemplaire kon donc man jàmm laa sekk ñoom ñu nekk sama ay frère ñuy demalante ku si mel ni Bas ñoo bokk HLM ñoo defandoo lépp ca football ba la commencé après ñu nekk si aar bi mu nekk sama frère Elaj, mom moom sa cant ya la ñu commencé sama mag Ndoya mi ngi Paris moo ko daan bàkkal mu nekkoon si cant yi mu nekk tamit ku reconnaissant elage Hadj nekk ku baax. donc jàmm lañ sekk. dañuy taxaw ci bas faw ñu ñëwaat ci parce que wax nga ko sa biir wax yi a daan ànd. depuis booy la ba tey depuis football ba tey ñu gis leen daan ngeen def ay affaire mais léegi gëj nañ leen gis yéen ñaar jot moo amatul wala da bokkatul yoon. non bokk nañu yoon parce que comme liñ koy waxee moom dafay def musique man damay def musique peut-être moom dafay taasu mais man damay woy damay taasu damay tëgg. mais ñoo bokk li ñuy def benn la xëy na dem nañ ba macha ku si ne sunu borom def na la ñu bari nekk sa ginnaaw doo am jot waro di toog te liggéey moo ñu tënk mais nag dinaa leen wax benn affaire moo la nag bas cung dinañ def lu doy waar de loolu moom yàkkamtiwuguñ ko niñ koy togg par nank nank dañu bëgg def loo xam ne bu génnee àdduna dina yëngu waxuma Sénégal àdduna laa wax dina yëngu